jërëjëf damay euh, commencer d'abord par euh, gërëm euh, monsieur Gana Sène bi nga xam ne moom mooy inspecteur d'académie bu Pikine Guédiawaye ak aussi inspecteur d'éducation de formation yi fi nekk yëpp ñoom madame Ndiaye monsieur Diallo ñoom ñëpp nga xam ne monsieur Badiane ñoom ñett ñi nga xam ne ñëpp ñëw la ñu ànd ak moom pour ñëw fekkee si lii nga xamante ne moom mooy ndimbal li mairie pikin fas yéene jox li nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu njàng mi pour accompagner ndaw yi ci li nga xam ne moom mooy ubbite école gi war a am euh, le 2 juin incha allah ci kaw loolu euh, moo tax tey jii ñu daje fii war a jox monsieur l'inspecteur d'académie lu toll ci établissement bu ci nekk structure bu ci nekk dinañ ko jox euh, fanweer lañu ak juróom-ñett d'abord pour préciser ñoom ñi nga xam ne ñooy collège yi ak lycée yi nekk ci département bi. ku ci nekk dinañ la jox juróomi carton d'eau de javel juróomi carton de savon liquide juróomi carton de lave-main ak ñetti carton wu gel boole ko ak li nga xamante ne mooy collège yi ñaari lavoir pour xale yi mun ci raxasu ci biir lycée yi ñu jox leen ñetti lavoir pour accompagner leen moom mooy xale yi nga xam ne ñu war a ubbi di war a def classe d'examen yi muy terminale yi ak troisième yi donc ñooñu nga xamante ne ñu ngi ci fara teew loolu lañ leen jox pour que mun leen a ci loolu dans un premier temps ànd ci aussi ak war leen a jox ay masque mooy yi nga xamante ne moom laa sol nii élève bu ci nekk di nga am ñaari masque pour te permettre bu fekkente ne dindi nga benn bi nga mun ko fóot parce que mu masque yi c'est des masques lavables nga mun ko fóot denc ko solaat beneen bi ba bële wow nga jëlaat ko solaat ko donc loolu moom moo tax ñu jox élève bu ci nekk ñaari masque mu war a toll ci 65 yoo xam ne dinañ ko jox élèves du département de Pikine waaye joxaale aussi 2000 masques yi nga xamante ne ñoom ñooy personnel euh, pédagogique bi nga xam ne ñoo leen di accompagner mooy professeurs yi proviseurs yi euh, voilà les principaux ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci accompagner élèves yi total de 67 mille masques yoo xam ne dañ koy joxe pour dimbali élèves yi ñu mën a commencer ci jàmm ak ci dal waaye loolu dañ ciy gërëm di ci sant ñi nga xam ne ñoo ñu ci gunge it ndaxte lii bii liggéeyu masques yi ngeen di gis artisans yu nekk ci département de Pikine ñoom ñoo ko def artisans yu nekk département de Pikine monsieur Thiam bi nga xam ne mooy président antenne départementale bu chambre de métiers bu pikin mu ngi nuy teew moom lañ ci àndal liggéeyandoo ak moom ci sélection yi nga xam ne def nañu ko jëmale ko ci téyeer yi nga xam ne ñoo ne ci département bi te ñëw masque yi donc vraiment dañ leen di gërëm euh, di leen sant ci jàppale boobu nga xam ne jàppale nañu ko ba ñu mën a am masque yi ci lu toll noonu nga xamante ne bi du lu tuuti donc vraiment ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant bu baax a baax ñoom ñoo gunge waaye gërëm di sant ODCAV bu pikin di gërëm di sant conseil départemental bu Pikine di gërëm di sant aussi Croix-Rouge bu Pikine ak étudiants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir département bi parce que ñoom ñëpp dañoo nangoo nekk ay volontaires ànd ci ak ñun dem ci école yi ñu war cee tànn té téeméer euh, volontaire yoo xam ne dañ leen di tànn ci yooyu structure ñu dem war ñu nekkal ci biir école yi pour gunge xale yi di leen fàttali mesure barrière yooyu ñu war a respecté deen fàttali si seen solug masque mais di leen fàttali su deen leen fàttali aussi ci ñu war a utiliser gel bi saa yu ñu war a dugg ci biir école bi donc loolu volontaire yooyu ndaw Pikine yi ñoo ñu ci jàppale kon dañuy gërëm sant leen bu baax a baax di leen gërëm di leen sant ci loolu nga xamante ne li moom mooy seen ñëw jàppale mairie ville jàppale seen askan jàppale seeni i rakk ak seen i jarbaat dañ leen nag euh, c'est vrai jox ndàmpaay bu ndaw boo xam ne ku ci nekk ci ñoom ci biir ñetti weer yi ñu jëm dañ la jox weer wu nekk fukki junni pour au moins ñoom it ñu mën a xëy saa su ne di dem ci école yi di fa toog di yendoog xale yi di leen jàppale ci loolu. position yi nga xam ne jël nañu ko fi vraiment pour accompagner ubbite école gi ñu war a am le 2 juin incha allah rabbi fii ci biir département de Pikine.